gis ngeen c'est ça le Sénégal hein en fait c'est le Sénégal émergent ok Ada yaa ngi xuus ah d'accord merci beaucoup actuellement xale yaa ngi ci biir classe yi mais classe yi si boppam dañoo inondé mais bon on essaie de faire aller <laughs> man moom ku ma yónnee gàll laa bëgg na ma salle d'examen bi d'accord yéen ñii de la ñuy dund à l'école Pikine Vent Bay Regardez la maîtresse. <laughs> C'est grave. Voilà la situation actuelle de l'école Pikin Vambay. C'est déplorable et c'est dommage. Malheureusement, vu que nous sommes les soldats du savoir, on est obligé waaw fi kii bi di jaar ndox bi waaw waaw madame Gaye en mode xuus xuus <laughs> madame Gaye mi ngi xuus yaa Seyda ngi nee di xuus <laughs>